bu dof bu tilim ferul baa mu foot ba mu set fal mboolam baraamam la ko yaag lay biiram dëppoon nañ du déglu lu bon du déglu lu kudul baraamam du moy ngir tiit du beru ngir nekk lu rëy rëy du bew ngir tiit du moy ngir tiit du ber du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ faale ku dul du mooy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ faale ku dul du jàq du rët du jaaxle du fàtte yoon leen la tawat lu xew ku dul du daw ay noon du yox yoxi ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbamb ku dul lu mbir rëy rëy da koy far doole gëm du yoqi du daw di mbar mu farak boroomam du yoqi du daw du mbar mu farak boroomam lu mbir rëy rëy koy far doole ak gëm di yokki du daw di mbar mu farak baraamam dopp ba tax wàññi jaamu yàllaam du tiis ba moo tax war faratay baraamam di déggu nopp du mbaat kabar te teewul lu taw taw ak lu liw liw baraamam du tab jabatim usul di maamoom du gappru bis du weeru jullit boroomam du yeexal wenn waxtu te mus la faat la koy wax raw na montar mooy boroomam du ñàkk ba tax mu boddi kuree ya koy laaj du denc alal lu dul téere yi boroomam di dox di tëjoo ci dëkkaaleem cay kër féetaamam ca yannel baabaraamam du dox di nelaw cay lal guddi cay kii du lekk ba regg day mos ngir boroomam di fay ay moy di gàttandu wuti caaw di sotti may di jël sànju boroomam bu nattu jogaa ba jëm si ci ak njabootam daar daarloo ngir ànd ak boromam yaram naw ndaw xamal leen yoonu baatin teral naw maag ba jëbbal leen boromam yëfal nay mbër tabax nay kër ci suusi xamal naña sànku woon ngir boromam tataal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniya ma seefu la gis kemam cey mook boroomam dër ba ni kekk nooy ba ne nemm ci wet am jàmbaar gu tar ragal boroomam oyof ba ni toy diis ba ni gann ci wet